buñu tabax ci littoral nous avons jël ay la loi sur le littoral ñi fi nek nañ leen fi notre principe aujourd'hui c'est de dire non au bradage du littoral oui à la démocratisation foncière que de Malika yëmbal maire yi nañu bàyyi suuf suuf yu ñuy saaxe saax saaxe sous prétexte que nañu bàyyi diko jox ay ñi nga xam ci gouvernement ba liñu bok wala ci kilifa diine liñu bok wala ci yeneen ak yeneen lañu bok le Sénégal appartient à tout le monde les aujourd'hui ici nous avons vraiment besoin yaa ngi gis Soye Diagne mu ngi fi Fadou blondien Diop mu ngi fi ñom day nday ndaak ñu ngi fi tous les Sénégalais vraiment sont frustrés du fait que l'État ne prend pas en charge le doléance principale nous voulons de l'air nous voulons de l'air libre au niveau du littoral. On veut qu'on vote la loi sur le littoral. On veut qu'on préserve les plages pour tous les Sénégalais. Pas de privilégiés. On est tous démocratiquement égaux devant, devant, devant la loi. Ce que nous devons faire, le président de la République. Nous avons ñu bàyyi nous bi na nous nous de suuf si nous avons bàyyi ko akimoo sen biir ñi nga xam ne nous koy wër ñu koy nax la loi sur le littoral ñu

xam nga dañuy njukkal dakarois yi nga xamanteni ni ñew nañ ci li di nga xamanteni moy distribution de masques yi euh, dañ ko def uniquement pour attirer attention autorité yi pour que ñu xam ni littoral bi momelu askanu Sénégal il n'est pas du tout question que ñuy bayyi ñuy jël ben élite bien choisie ñi nga xamanteni ño ñoo ci boppu nguur gi ñi nga xamanteni ño ñoo ci kilifa gi ñuy ñew fi ñu leen di defal ay bail ñuy transformer en titre privé la loi est claire et nette à ce sujet si occupation domaine maritime bi képp ku nga xamante bail nga war ko da nga koy utilité publique lay doon boo ko noppee def utilité publique nga ñu sunu sunu sunu ñun ñu naka lañ koy bas Sénégal nangu. Ben nit nga xam da nga xam président wala da nga xam ben politicien ñu lay jox keuyit nga koy soppi titre privé ñew fi diko jaayé ay milliards au détriment des sénégalais ñuy tok di torox di son lolu lañ ni day dakk te day jeex jërë ngeen jëf.